이거 먹어? 이거 먹어. dia kalau dia, lawan dia pasti tujuh tujuh. Kalau kalah dia. soxna si gannaaw bi nga xam ne dañoo jugee euh, ci fan yi ñuy génn. dañoo génnoon ci coow. léegi nag euh, ak wàccaay tabaski bi noo gisee marché bi. marché bi moom neex na wax dëgg yàlla. lan. ah gis nga daal wàccee nañ ci bees daal. waaw ah, te gis ñu wàccee macha allah bëgg nañ. ah seerul. ah waaw lool gisee nag coow bi ngeen génn nag bi ak coow bi lan ngay wax la politicien ak coow bi métti lool waaye wax dëgg yàlla dina passé waaw passé na ak jàmm te dina passé waaw da ñaan jàmm daal la si laa ko lëkkoon ay jënd di alimenté te kuy jënd di jaay waat da ngay neex rek. ay defar ak dugg si wàññi naa bàjj naa copp naa tuur naa vol yaa ngay jeex borom de yaa ngay jeex borom de autorise yaa ngay jeex borom de yaa ngay jeex ku bëgg na fa yaa na ba jàll si biir ci si xew 3500 dugg si di jaay waa da ngay neexle jeex neex a bi daa la sëñ كيش سانسلا كل أبد ki si sañse ki si sañse ma ne noonu noo tudd laa wax sa tur Saliou Ngom Saliou Ngom waaw Saliou Ngom ah, dañoo jógee ci ay jamono di metti si coow li fan yi ah, tey nag ah, ngeen commencé waat jaay lan la mbir mi tëddee fii jaay marché jàng fii jaay marché jàng moom xawoon naa métti ci xawoon naa fan yi passé yaa saa yi sant yàlla daal parce que fan yi passé da nga a da nga a jaay te doo nekk sa xaalis jamono bi métti lool daa instant daal macha allah fii sañoon daal di jàmm nekk fii daal instant ah, daal yow jàmm bi nga ngeen bëgg daal bu ngeen mën a jaay pour tabaski waaw jaay am jàmm mën a jaay ci tabaski ki yaay mën a génn parce que soo ko xoolee client yi su ñu la woon a jënd rek daana doo ko jaay parce que instant yi amee rek client dañ commencé génn jaay wàcceen ndànk a ndànk waaw léegi looy wax politiciens yi politiciens yi su ma sañoon daal ñu waxtaan seen biir ànd Sénégal ñëpp a ko ñëpp a ko am na loo xamante jarul ko ku nekk nekk sa weer set daal yéen daa jarul kii loolu jarul yoonu parce que itam coow amul benn njëriñ ñu yàq seen bagage yi ñu ne mu ñëw mën nañ yëpp ko daal vraiment doy na waar daal dañoo mën nañoo waxtaan kon ñeneen ñi li ñuy yàqule bëri na non saa li ñu yàq gars yi li ñu yàqule ñoom métti na lool métti na lool parce que Sénégal dañ bokk daal kenn mënu koo xam ñaar léeg-léeg sax am nañu ay boutique yi ñuy fi sax parce que ay ndax ay taw am na ñoo xam ne dañoo daj seen portable yi bari fi moom vraiment bari fi bari fi moom bari na fi. kon yéen a ngi ñaan daal bu mu amati daal. suñu sañoon daal jotul amati suñu sañoon daal na jot ci la ñuy yóbbu suñu jaay booy yi ak suñu léegi ak euh, wàccaay tabaski bi est-ce que pis na affaire yi cher na wala seerul. pis yi moom instant yii moom vraiment seerul quoi. pis yi moom seerul parce que 2500 moom daanaka seerul am na ñoo xamante ne koy jaay ay 6000 ma koy wàcc 2500. mais clients yi ñëwaguñu noonu daal. waaw clients ñoo ngi mos daal sant